waaw awadan maratan uxra ñu dellu si nag laaj bi nga xamante ni moom lañ indi tey jii nii xam naa di ko adressé ñi ne ci groupe yëpp rawatina Seydi euh, Babacar Ndaw ginnaaw buñ ko gërëmee ci taxawaayam bu rafet ak Baye Mbaara ñoom itam Seydi Ibrahima Diouf yow it du ñàkk boo ko mënee yónnee imam bu séeri yu mu xool euh, ñaari xadis yi nga xamante ni am na ixtilaaf bu baax a baax a baax pour man xadis bi dafa wax ni yonente bi nee na bu leen bind lu jigee ci man bu leen bind lu jige ci man beneen bi ñu ne waat yonente bi dafa wax mu ni kat indil leen ma ma bindal leen loo xamante ni su ngeen ci toppee du ngeen réer sama ginnaaw léegi naka lañ mën a def bu leen bind lu jige ci man ak indi leen ma bind léegi ñaari xadis yi naka lañ ko mën a comparer bu boobaa nag ndax ñi nga xamante ni dañuy wax ni yonente bi bi mu waxee nañ indi ñu bind suñ ko yóbbu loon ñu bind mu bind lii du xew su boobaa ñooñu naka la ñuy def ak xadis bi nga xamante ni yoon def dañuy laa takkatubu an ni nan la ñuy def ak moom su fekkente ni tamit dañu wax ni <clears throat> maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax bu ñu bind naka la ñuy def ak ñi nga xamante ni ñoom it dañuy taxaw ni yonente bi moo wax ni indi leen euh, ma fooy ma bindal leen kon daal ku ci nekk rek maa ngi jàpp ni war nga mën a ñëw nga leeral ñi d'accord ni yonente bi bu ñu indi woon këyit mu bindal leen li xew du xew ñooñu naka la ñuy def ak xadis bi yonente bi wax ni bu leen bind lu jige ci man ñi d'accord ni kat yonente bi li Seydina Omar wax moom mooy dëgg ndax euh, yonente bi euh, dafa am lu ko notoon alquran ak euh, sunna doy nañu te xadis bi wax bu leen bind dara loolu lay dëggal ñoomi su boobaa naka la ñuy def ak xadis bii nga xamante ni moom la Seydina Omar wax ni kat yonente bi dafa am lu ko jàpp kon alquran ak sunna doy nañu loolu daal laa bëggoon bu fekkente ni mën nañ ko leeral ñu indi ci ay leeral incha allahu taala waaw beneen xadis bi ñoom it dañu wax ni yonent bi dafa xamu ni indil leen ma kayit wala indil leen ma fu ma bindee ma bindal leen loo xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen réeroo du ngeen réer sama ginnaaw waaye ñoom itam naka la ñuy def ak xadis nga xamante ni yonent bi dafa xamu ni bu leen bind lu jóge ci man léegi nag ñaari xadis yi daal bëggoon naa ñu indil ñu ci ay leeral ndax ñoom ñaar ñëpp dañuy bokk jël leen wala dañuy bàyyi benn bi jël benn bi wala dañuy bokk bàyyi ñaar yëpp loolu daal soxla woon naa ñu indi ci ay leeral incha allahu taala. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jamaatul islah bayna naas ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baluwaq di leen baal di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ñaan imaam Alpha ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm euh, di sàkku ci yow ñaan. waaw ndax ñaari xadis yi dafa am tanaaxut déedéet ñaari xadis yi day euh, ku lu ñu mën a dégg la lu yomba dégg la itam ndax soo xoolee benn xadis bi ndénkaan la euh, wasiya la te dafa dem ba waxtu wi mu jëm ci àdduna mu woote pour bëgg a joxe wasiya te loolu gis nañu yonent yépp euh, lu mel noonu def nañ ko Euh, gis nañ ko ca Yaaxub euh, gis nañ ko ca yeneen yonent ya ca digle yi ñu dénkaane dénk seeni njaboot balaa ñu faa jógee yonent bi sallallahu alayhi wa it dañu jàpp ne woote bi mu wax ne jox leen ma ma bindal leen xam naa ne du ñu dugg ci bindal gi ndax mooy bind wala day bind lu lu ci manti am jox leen ma ma bindal leen la wax jox leen ma ma bindal leen nag uute na ak bu leen bind ci man parce jox leen ma ma bindal leen su boobaa moom mooy wax ni def leen lii ndigal la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom dafa am euh, kàddu ci ndig digle maanaam dafa am droit ci digle dafa am droit ci digle kon euh, yàlla moo ko jox ni ko defal lii ñuy def digleel di def ñuy def muy tere ñuy muy tere ñuy bàyyi comme li nga xam ne yàlla day jaarale ci moom ay message am mu di ko transmettre moo xam ci alquran la moo xam ci beneen euh, xeetu jàllale message la mais message yi ko yàlla jox mu koy jàllale yenn yi nekk ci ay aaya alquran yenn yi nekk jaare ko ci ay waxam ak i jëfin muy jëfee kon euh, su waxee jox leen ma ma bindal leen rawatina ci mujjug dundam loola lu ñu mën a dégg lay doon euh, fële itam mu wax ne bu leen bind ci man ku bind ci man na ko far foofaat dafa amoon lu tax ndax mu bañ a jaxasoo ak alquran daf ci bokk ndax li ñuy bind bañ a jaxasoo ak alquran waaye teg na ca waxaddisu am ni kon dee leen nettali ci man dee leen nettali ci man maanaam dee leen nettali li ma doon def te ahadis yi soo xoolee nettali li yonent bi doon def la nettali li yonent bi doon nettalente yooyu nag bi ñu ko defee ba nga xam ne alquran ñoxu na foofu lañ commencé bind dëgg-dëgg xadis yi nga xam ne euh, kenn du fi jaxase xadis yi ak alquran loolu bokk na ci li sàmm alquran ba nga xam ne euh, kenn du ko jaxase parce que ñu fàtte ne ay tuubeen la ay nit la ñoo xam ne ñëpp mun ñu woon a bind ñëpp mun ñu woon a jàng léegi ñooñu soo ñëwoon rek di bind lu ku nekk di bind ñeeri bind alxuraan ñee di bind xadis lu yonte bi wax ñu bind su boobaa danañ dem ba duutuñu xàmmee lan mooy alxuraan ak lan mooy xadis léppay mujj jaxasoo euh, te loola mën na ci am léegi nag sàmm ngi yàlla bëgg a sàmm alxuraan euh, dafay jaaral jaarale ci làmmiñ yonent bi bu leen bind gun lii bind leen lii ñii bind alxuraan ñoo koy bind xadis yi bu ko kenn bind mais nañuy nettalante nettalante boobu ci la ñu ñëw ba gis ne Euh, commencé nañ di ko bind lañ doon nett lente parce que nett lente bi su yàggee dafay mujj euh, nekk leneen kon loolu itam bokk na ci yi nga xam ne euh, lu ñu mën a remarqué nga gis ne xadis yi njëkk a bind téere xadis yaakaar naa ne yi ci mag moo taw Malik amul yaakaar naa amul daanaka quasi amul ndax ci deuxième siècle la nekk moo taw Malik su ko defee nga gis ne yeneen ñi ñëwaat yëpp ci troisième siècle bi lañ nekk jëm ci kaw waaye tamit la yonent bi doon ragal euh, ba waxoon ne euh, man kazzaba alayya mutaamidan euh, loola itam xam nañ ne am na parce que xadisu mawduu yi bari nañ lool xadis yi nga xam ne dañ leen a tuddee xadis yi ñu sos bari na trop xadis yi ñi xam ne dañ leen def ne xadis yu wérul la bari na lool ci xadis yooyu nga xam ne kenn tuddee leen mawdu waaye daif lañu wala wala leneen lañu wala leneen lañu loola bari na parce que soo xoolee nombre xadis yi yi nga xam ne wax nañ ko euh, ñu naan la euh, kii mokkaloon na junni junni xadis junni ci ay junni ci xadis da ngay xam ne junni ci ay junni ci xadis même su fekkee ne xadis yooyu am na ci yoo xam ne da tikraar dafa am maanaam dañ ko baamtu baamtu da caa amit da ngay xam ne nombre la boo xam ne c'est ëpp na ëpp na jéggi na daayo Euh, biñ ñëwaatee gis nga ñu wax ne la Buxaari yi bi ñuy génne génne na lumat mat juróom-benni téeméeri junni ci ay xadis juróom-benni téeméer ci ay junni ci ay xadis euh, te finalement euh, ca bañ demee ba ca mujj ga lafa nekk yëpp ci xadis yoo xam ne kenn baamtu ko ñaari junneeg tuuti rek ñaari junneeg nangam la lu manqué ñetti junni la kon nga gis ne mbir yi am na yu ci nekk yoo xam ne la yonent bi doon ragal. ah mbir yooyu ma nga ca bañoon ñu waxal ko loo xam ne waxu ko malgré que loolu yëpp terewul it nag waxal nañ ko lu mu waxul euh, parce que sooy xool ci biir xadis yi sax même ci xadis yi nga xam ne moom la ñu indi danga ci fekk yenn saa yi xadis yoo xam ne ah da nga xam ne lii euh, moom mënul jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yooyu nag il faut ñu bàyyi ci xel waaye daal xadis yi moom nekkul loo xam ne lu war a mën a lu def maanaam lu juwet loola bind kaay leen ma bindal leen kooku yonent bi la moom am na kàddu am na droit ci wax def leen lii waaye bu leen bind jim wax itam tere la parce que xam na suñu bindee lan moo ci lan moo ci war a mën a judd jóge ci ay njaaxum wala ay mbir yoo xam ne dana indi jafe-jafe waaw kay ñu ngi lay ziyaara bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa naas ñu ngi leen di nuyu leen di ziyaara nuyu Thierno Alpha Ima Sall imam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara xam naa ne ñu ngi topp yenn audio yi macha allah euh, tase ñu liir xadis bi dégluwaale sa audio bi nga xamante ne boroom xam-xam la waaye laaju ku bugga leeral ay mbir yu ci bopp ñenn ñi la nag dafa am ku ñuy digal ak kuy digle kiy digle moom sañ na ci boppam lépp waaye ka ñuy digal nag sañuta def ludul dul lañ ko digal yonent bi moo doon digle ni jox leen ma moom moo waxaat ne bu leen ma bindal kon diggante bu leen ma bindal ak jox leen ma bindukaay ute ci waxin amu fa ndax lan moo tax kiy joxe ndigal moom mën naa am droit ne lii moom la bugg a def waaye ña muy digal nag amuñu droit def loo xamante ne uute na moom ay ndigalam te moom comme waxoon na ne bu leen ma bindal dara bu leen ma bindal dara eh, ci mujjanteel mu ne jox ma bindukaay ma bindal leen loo xamante ne du ngeen réer sama ginnaaw te loolu tamit e, leer na ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yonente bi e, wax na mu leer ne bàyyil naa leen ñaar bàyyil naa leen ñaar nañ xool nañ seetlu sew-sew bi nekk ci loolu bàyyil naa leen ñaar yoo xamante ne bu ngeen ko toppe du ngeen réer sama ginnaaw mukk muy lan kitaab allah kitaab allah ñaax ci jullit ñi ñun jullit ñi ñépp mooy nañ ci alquranul karim jàpp ne téere bu wér la jàpp ne axkam yi ci nekk yépp wér na lépp lu mu aaye dootu ko digle lépp lu mu digle dootu ko aaye lépp lu mu saxal dootu ko far lépp lu mu far dootul sax kooku ñu ñëpp ku nañ koo gëm léegi mu des wa itrati ahlu bayti wa itrati ahlu bayti lan yatafarraqa gis nga sew sew sew sew baa ngi foofu léegi ñan ñooy waa ahlu bayt ahlu bayti mooy ña nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa uufoon na leen ne ñii haulaay ahlu bayti allahumma izab anhum rijza nga xamante ne yàlla wàccee na aaya boobu nga xamante ne li yuzibakum rijza ahla bayt wa yutahirukum tathira muy kan seydina ali seydina xasan seydina xuseyn seydatuna fatima ak moom yorante bi mu ne ñi ñooy sama waa kër léegi nag bi muy dem loolu la dénkaane wa itrati ahlu bayti léegi ñuy jàpp téere bi bàyyi ahlu bayti bi ci mujjanteel gi mu ne jox leen ma ma confirmer ma confirmation loo xamante ne bu ngeen ci jàppee du ngeen réer ndax wóor na ne yorante bi du du du du maanaam mbindam du uuteeg waxam mbindam du uuteeg waxam kon nag e, maanaam dégg ni ñaari xadis yi buñ ko lekkalee kuy digle la ñu ñuy digal ñi ñuy digal dañ leen waxoon ne bu leen bind dara kii digle am na droit man may bind kon kii liggéey kii liggéey sa DG mën na laa wax ne balaa ngay signé benn kayit bul signé sax benn kayit sa DG mën na laa wax ne bul signé benn kayit mais moom am na droit signé moom c'est simple pour ñu dégg ko moom sa DG moom mën na laa wax ne bul signé benn kayit nag benn kayit boo ko fi signé day naa la dàq mais moom DG bi am na droit signé kayit te du la sax tàggu yow loolu foofu ñu xam ko kon nag eh, yonent bi moo kawe DG saxaaba yi ñoo kawe eh, ki nekk ci ronu DG waaye misaal boobu lañ ci mën a joxe waaye dal ñaari wax yi boo ko méngalee ku ñuy digal la ak lu mu gàtt ak lu mu wax ji bari bari ak lu muy gàtt gàtt ku ñuy digal la ak kuy digle bismillah alhamdulillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jamaatul islaahi benn naas ñu leen nuyu la wàcc seen wàcc waay di leen adu bees bi di leen baal ak di leen balaax di ñaan yàlla ñu baal te yàlla def mu nekk ak jàmm atal nattange atal te yàlla saxal ñu si gëm yàlla yaa waaw euh, ñu ñëw si ñaari xadis yi nga xam ne ab laaj judd na ci ndax ñaari xadis yi dañ leen mën a boolente wala ñaari xadis la yoo xam ne dañoo dàquwante su nekkee nag dañoo dàquwante nag ñoo saxal lee nan la ñuy def ak hadis bi ñu saxal bi tamit la ñuy def ak hadis bee wala kullin ñaari hadis yi dàquwante wuñ ñaar yëpp mën na leen a boolente maanaam tawfiq mën na am ah, ngir boolente ñaari hadis yi ba nekk jël atteem amma xadis bi nag muy ituni aktubu lakum kitaaban la tadillu baadi kiit dafa uute ak lool tere bam tere woon fële bee dafa tere woon si saxaaba yi nga xam ne ñoom dañuy dégg walla ñuy gis ay waxam ki jëfam di koy bind bii nag daf leen digal ne leen indi leen ma bindal leen bind goo xam ne moom mooy wax ne bind leen maanaam bindal nangam ak nangam ak nangam ñoom ñu bind kon loolu dafay uutee ak ki nga xam ne moom kenn waxu ko bindal moom moo gis moo gis ab wax wala mu gis ab jëf rek dem bind ko ci moom kon ñaari duñ bokk moo tax ñaari di yoo xam ne taarud amul si bii moom yentu moo ne andil leen ab bindukaay ma bindal leen loo xam ne kat su ko jàppee sama gannaaw ngeen réer mu uute ak lool loo xam ne moom daf kaa wax ne te waxul si ne bind leen ko am ku ñëw bind ko ku ne gis ne bokkuñ taxawaay léegi nag bii moom si lim doon wax tamit leer na te mooy keroog bi nga xamee ne nekk si euh, waxtu yi mu jëm mu wax ne niñ ko jox bindukaay mu bindal leen loo xam ne su ko bindee kat suñ ci jàppee duñu réer gannaawam waaw kon loolu moo tax ñaari xadis yi bu nekk day jël bu nekk àtte boppam la bu bokk ak moromam ndax bee lam tere mooy ñi xam ne ñu ngi wax ñu ngi ñu ngi ñu ngi toxal ay ay ay waxam ak jëfam ci seen coobare bopp te digalu leen ko bii nag dafa wax ne indi leen ma bindal leen bi maanaam moom moo digle ne indi leen ma wax leen li ngeen di bind kon su boobaa ñaari xadis dañuy gis ne bu nekk dafay nekk àtte boppam wallahu muwaffiqun li Ndaw maa ngi lay nuyu démb léegi maa ngi lay poursuivre ci wax dëgg yàlla ci ni ngay nettali histoire bi surtout ma élan bi ko jëlee mooy élan bu gën a kawe nga xam ne te puis dama gis da nga ramassé angle yëpp surtout ci wàllu calendrier yi am grégorien julien naaj musulman bi mais en même temps tamit ma tamit nga génnee les point yi nga xam ne moo gën a leer ci histoire ci mën ci ñu mën a wax dëgg-dëgg lan mooy Karbala ndax Karbala boo ñëwee nettali histoire bi rek sa dafa am ay plusieurs versions histoire bi ni ko Busiri nettale moo am ci Awaasimul Qawaasim ci Ibnul Arabi bi Awaasimul Qawaasim Ibnul Arabi ku ne xam na ne moom li ko taxoon a jóg mooy jéem a seet naka lay fompee rongaj dàmp ñi seddal ñi ba jéem a uh, maasale loolu da nga koy gis si téeréem bi wax dëgg na nettali histoire comme ni mu demee na mais bu ne daf ko jéem a justification par contre euh, boo jëlee ci ni Daouda Camara waxee ak te Baye Mbaar waxee ko bien sûr que ñoom ñaar wuute nañ kii dafa ne Muawiya moo empoison moo empoisonné lu jabar ji kii na Yazid mais de toute façon empoisonnement bi bu fekkee am na donc pouvoir bële ñëw na pour éliminer te lool du guléet sax ci ci ci ci ci waa ubbi yu umma bi yu nayi loolu ndax ñoom am na ñoo xam ne rey ñu leen ci seen biir ñoo xamante seeni seen colonel lañ woon seen i njiit lañ woon mais aura bi ñu amoon ci wàllu politique ak popularité ak doole tax na ñu wàññi leen loolu du ñàkk jëmmi jamono des na ci ñëw ndax loolu lu amoon am solo ci wàllu nettali ci wàllu histoire mais euh, dafa am benn problème bu posé wu tey ci xadis bi axadis yi fii kii wàccee yi fii kii andi daal euh, Cheikh Alfaar ñu koy gërëm di ko sant ci position dafa am ci xadis bi waxu Omar bu mu ne fii maanaam boo ko doon déggee saasam dafa saalit métit wee ko jàpp tax muy wax mais loolu bu wéree ci xadis bi ne ci la loolu doy na waar trop bu fekkee Omar moo ko day doy na waar franchement yenn saa sam fu mu war a mën a yegg ci métit ba saalit donc est ce que en réalité dëgg dëgg nag war nañ taxaw xoolaat xadis yi nag xadis yi moom dafa jar a xoolaat nag parce que léeg-léeg ñu waxee noo xam ne ci yenn saa sam franchement duñ ko nangu sa wax ci sëñ Tuubaa wala ci Alaaji Maalik wala ci Mawlaana Cheikh Ibrahima donc dëgg man daal sama point foofu rek laa xool ci xadis bi tandis que jàll yëpp lu normal mais fii wàjju lan moo war a man fan la Omar fii wàjju ne mel dafa ne yonent bi saa sama àndatul ak sagoom loolu nga ciy déggee daal vraiment laa bëgg ngeen def nga def ci njàngat man pour man angle boobu c'est plus sérieux ko quoi parce que loolu moom lu doy doy waar la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Ibrahim ñu ngi lay ziara bu baax Eh, di la jaajëfal di ñaanal jàmm di sàkku chew ñaan di ñaan borom boole ñu defal jàmm di topp waxtaan yi mu am solo lool macha allah waaw xadis bii day wax dëggunu yàlla ku ko xool maa ngi koy wax sax sànq ku ko xoola bii ku ko xool da nga fekk loo xam ne ah da ngay xam ne lii moom eh, kenn du xam noo koy qualifié mooy eh, ndax nag mais il faut que ñu xam parce que daf ci am loo xam ne xam nga toppkatu xadis bi. moom sanat lay xool euh, ak euh, ruwaat yàq ak euh, ñafa nekk ndax siqa la ñoom du ñu siqaak yooyu su fekkee ne nag kiy def taarix la moom moom dafa am ay kanaal yu muy utiliser pour vérifier li muy li muy jàng ci taarix nan la koy nan la koy déggee ban lay jël ak ban lay bàyyi taarix ak euh, xadis dañu uutee nuñ koy jëlee moo tax da ngay gis euh, ñiy def xadis suñ duggee ci taarix dañuy weddi souvent naan bi wér na bii wérul fekk mu muarrix bi ni muy toppee ni muy toppee texte bi pour xool ndax daf koy valider wala du ko valider bokkul ak euh, muhaddis bi ni muy jëlee texte bi di ko vérifier ndax xadis bi wér na ak wérul bokkuñu nu ñuy doxee. loolu ñu bëri da ngay dégg ñiy def muhaddisu ñi ñu bëri suñ duggee ci eh, ibnu saad par exemple wala ñu dem ci eh, ñenn ci ñu mel na ñooñu dañuy faral di di seeni wax fekk booba ñaari nattuwaay yi ñoo wuute ñaari nattuwaay yi ñoo wuute parce que mu arreex dafa am nu muy mu xaddis dafa am nu muy nattee ñaari nattuwaay yi nag suñu wuutee soo bëggee jël natt bale natte ko beneen bi du sotti ku nekk fa ngay jëlee say nattuwaay yaa ko xam looloot ñu bàyyi ci xel mais euh, muarreex bi dana jëlub xadis par exemple mu muarreex day jëlub xadis natt ko ci taarix su boobaa moom du ko mën a jël du jël xadis bi lu tax muy nattuwaay yi mu koy natt su ko nattee dafay manqué su ko nattee rek dafay manqué loolu dafay feeñ ci xadis yi kii gën a spécialisé wu ci taarix soo ko indilee xadis yu bëri soo ko soo ko nattaloo woon da koy dàq lu tax mu koy dàq day am lu cay nekk loo xam ne day jàpp ne lii warul mën a demee nii benn day xoolit contexte ya euh, contexte yi itam dafa mat di bàyyi xel ci xaadis yi euh, rawatina contexte bii nga xam ne ci la yonent bi génnee àdduna contexte boobu dafa dafa am ay dafa bari ay enjeu yu fa nekk dafa bari enjeu yu fa nekk lool yu bari lool moo waral nga fekk fa xadis yooyu yu bari yi nekk ci yu bëri yi fa nekk daal maanaam suñ ci duggee dafay gën a yaatu mais xadis yu bëri yi fa nekk soo fa ñëwee da ngay gis duñ koy jéem a firi dañ koy jéem a firi te firi ma sax soo xoolee dafay am justification maanaam ñi ñiy tafsir ñiy firi xadis bi ñiy charxu xadis bi da ngay gis ay justification yi ñu fay faral di def ci ne yonent bi doon waxee wala ci xew-xew yenam doon demee da ngay gis ñu di ci def justification pourquoi justification yi ci ngay xamee ne contexte bi moo waral justification yi commencé ci euh, balaa yonent bi génn àdduna ba bi bi génnee àdduna ci commencement xilaafa gi ba ba ñuy egg ci jamono Seydina Ali fitan yi commencé ci Seydina Ousmane ci fitna yi ba ba ñuy génn egg ci Muawiya ak ñoom yëpp li fay ñëw yëpp da ngay gis ay justification yu fay am ba ca Karbala sax da ngay gis ay justification yu fay am lan moo waral justification contexte yee ko waral contexte yooyu nag ku ko xam xàmmee ku ko ràññeetle da ngay xam lan moo waral lii yëpp euh, ki ka ràññeewul nag mën na ko bañ a xam mais ki ka ràññee moom day xam automatiquement lan moo waral euh, justification bi lan moo waral. xadis bi bi mu ñëwee ñii bañ ko lan moo waral tëralinu xadis bi nii lan moo waral ñu nettalee ko nii lan moo waral ñu indiwaat ci charx bi yooyu yëpp nag loolu moo koy indi ñu ngi jéggalu bu baax xam naa dafa ñëw ñu bañ mu gudd euh, waaye incha allah suñu amee gënee ki danañ ci ñëwaat incha allah jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw dëgg la naa nga loolu ñu ci yokk bu fekkee wér na Omar moo ko wax dafa mel dafa wax ne yonent bi dafa saali man loolu rek laa bëgg a wax parce que bari na xadis yoo xam ne xadis bi day wér waaye raawi bi mooy dem ba doog dugal ci ay mbir ñu ngi ko waxee nag comprendre naa mais fii dafa point bu essentiel la daal lim ne nañ dem leen yonent bi xat xalaba alayhi wajhu loolu laay laaj loolu bu bokkee ci xadis bi dina nan lañ ko mën a déggee comme gis naa Modou Gueye Al Fiqi mu ngi dugg dafa mel moom mu ngi ci ay leeral ak ñëpp ah ci mën a andi leeral parce que man xadis bi suba maa ngi koy xool moom rek laay xool xat galaba alayhi wajhi bi bi wax liñ ne moom la Omar wax. salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh maa ngi lay nuyu ñu nuyu waa groupe bi yëpp macha allah alhamdulilah waaw xam naa xadis bi de gis naa ne man maanaam lu neex a jàngat la. ci eh, rawatina kuy dund ku mel ni Sénégal yaakaar naa ko dem ci imaamu ak lu bare bari ci borom xam-xam yi leeral nañ xadis bi maanaam eh, comme Seydina Omar ak ñi àndoon ak moom ci saxaaba yi ñeewant yenent bi sallallahu alayhi wa ci mettit bañ koo togg coono moo waraloon ñu wax wax ji rek day faral di am danga nga ñëw ci nit ki wala sëriñ bi ci boppam am lu mu bëgg taalibe yi ci boppam xam ne sonn na ñi xam ne lii nii daf koy sonal ñu ne sëriñ bi dafa sonn jeex na sëriñ bi dafa sonn ñu ne Seydina ak ñi àndoon ak moom ci wax jooju ñeewante gi ñu ñeewante woon yenent bi sallallahu alayhi wasallam qad qalaba alayhi alwaj'u bi maana yenent bi dafa sonn rek nañ ko yërëm nañ ko yërëm ci mettit bi léegi ñi indi mu ñuy bindal waaye ak teewlu gi mu teewlu woon masalan ma faratna fil kitaabi min shay tibyaanan li kulli shay moo waral mu ne comme am nañ alquran nañ doyloo alquran bañ a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw man ne gis naa ne xadis bi wax dëgg yàlla amul benn benn benn problème benn benn wala benn jafe-jafe waaw maanaam euh, nit ku nekk nag ak aadaam ma ngoog léeg-léeg da nga am sa kilifa mu bëgg a def dara mu leer na li lim bëgg a def nii masalan daf koy jural coono donte maslaha mu ngi ci nga dimbale ko ne ko déedéet beneen bi dañu Seydina Omar ak ñi àndoon ak moom dañoo xamoon ne lii Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñi indi leen ma bindal leen dootoon waajib maslaxa la woon waaye maslaxa bi nag bu bëggee jur ak coono bu métti ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu teggil ko ko loolu dong la maa ngi jéggalu bu